Euh, di bëgg ñu gën ci jëm kanam waaw waa góor lañ leen di wax surtout bu ñu ñëwee nag ànd ak ñoo xam ne dañu jóge bitim réew ah, di liggéey nag ñoom bu ñu ñëwee gis ne nit ñëpp taxaw nañu tey teewaayu préfet bi ah, wane na importance bi nga xam ne bii ah, autorité yi jox nañ ko xale yi li ñuy def surtout ci wàllu tàggat yaram looloo tax daal ñu ci kontaan trop di leen féliciter di féliciter Euh, le jeune Fallou Mbengue nga xam ne moom moo nekk président Vision Africa jërëjëf. voilà donc euh, bu fekkoon tamit fi muy mujjee xale yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw jógee partout euh, ci biir réew mi ci gox yu fasanti ko ñëw teewlu si bu fekkoon ne na benn message boo leen di yóbbante lay doon par rapport a nga xam ne mooy seen passion ak seen métier au delà du sport. waaw benn message rek la moom mooy ñax jëriñu. sport moom li nga liggéey préparé ko rek moom ngay wane ci terrain dans la vie également loolu liggéey rek waaw liggéey sa talent nga exprimer ko euh, dem jusqu'au bout boole ko ak sérieux waaw benn mot rek moom moo am solo actuellement ci Sénégal euh, ci àdduna bi mooy sérieux waaw loolu moom boo ci taxawee rek ci domaine bu mun nekk rek dafay am résultat jërëjëf. te tey ngërëm ñal na. mbégte teew fii. teew fii euh, pour féliciter d'abord euh, sëñ Fallou Meng di suñu rak euh, di suñu jarbaat également di ko encourager ci initiative bi mu am à travers son association Vision Africa mu ànd ci aussi ak ay partenaires donc jaadu woon na ñëw fii en tant que autorité administrative yor gox bi mu saisir ñu ñu ñëw féliciter ko mais encouragé ko également ci initiative bu am solo bi nga xamante ni bii am na ko. voilà donc euh, nañoo fekk fii say jarbaat say doom. Hmm. ñoo wuyu si euh, ci opportune bi nga xamante ne Vision Africa fegal na euh, yi tey fekkoon ni am na loole leen wax ci wàllu ñaax wala message bu nga xamante ne daf leen di lay doon. waaw xam nga football ñun suñu réew dafa di sport boo xamante ne bii dafa am engouement bu am solo ndax tey moom mooy. en tout cas sport boo xamante ni sport roi ñëpp tey jii xale yëpp tey jii football la ñuy pratiquer daanaka donc li ma leen di ñaax rek mooy euh, ñu gëm seen bopp euh, tey bu ñu demee ba am ay Sadio maane am yeneen talent issu de milieu modeste ça veut dire que ne ñoom itam wax ñu mën a gëm seen bopp xam ne aussi wala euh, ñefe rek gëm sa bopp liggéey aussi mooy tax nga mën a am dara mën a tekki ëllëg. donc loolu nag ñu ngi leen di encourager di leen ñaan aussi ñu suivre direction boobu daal. monsieur le préfet Thiès cant ak ngërëm ñaan na la. ñu ngi leen di sant di leen gërëm.